Malick Diop euh, maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malick euh, nga nekk secrétaire général chargé de communication bu regroupement des taxis urbains euh, du Sénégal seen regroupement bi naka la juddoo exactement. bon regroupement bi mi ngi judd ci jamonoy Covid 19 bi le 28 mars dernier 2020 bi ñu koy wax ñu créé ko dañu gisoon à l'époque maître moo nekkoon ministre du transport. Euh, jafe-jafe yi nga xam ne moom la secteur transport daan tund muy tudd ñëpp te du tudd taxi urbain yi si la ñu gis loolu ñu gis ni loolu jaaduwul ñu def une tournée nationale ñu gis plus de cent cinquante sept garages ak GIE yi nga xam ne ñoo nekk fii si Dakar waxtaan ak ñoom pour former benn regroupement bi ñu waxtaanee ba déggoo lu mat cinquante sept GIE ak garage ñu wuy suñu ñu ànd taxawal regroupement des taxis urbaines du Sénégal. Mhm. si noonu lañ ko taxawalee. waaw si euh, euh, loolu nag si la ñu euh, xeex pour jéem a jàppale nguur gi si ni mu doon xeex si wàllu Covid 19. Mm-hmm. ñu ñëw dajale suñuy dërëm def une une participation jox ko ministre des euh, transport pour bokk si li nga xam ne ñooy xeex Covid 19 ba pare mener des campagnes de sensibilisation chauffeurs yi pour ñu am taxawaay pour feebar bi mën fi jógee. voilà euh, ngeen daal di amal ab point de presse ngir wax jafe-jafe yi nga xam ne yéen euh, taximen yi taxi urbain yi ngeen di jànkonteel euh, dem ngeen bay wax wàllum transport irrégulier exactement yan problème ngeen di jànkonteel ci liggéey bi. waaw Ndeye Comba fi ñu toll jafe-jafe yi nekk si secteur transport dafa bari lool lool lool ba jéggi dayo daanaka ni ma ko mën a la ko mën a waxee. Mhm. tey secteur transport surtout particulièrement les taxis li leen gën a sonal. mooy li ñuy wax les clando en ligne te nit ñi di wax ne ay application mais ñun ñu leen jàpp mo son ce des clando en ligne te nguur gi mi ngi liggéey si transport de masse indi terre indi berte mi ngi ñëw tey boo indee nouvelle transport de masse bu mel noonu ba pare nga xam ne sûrement dina impacter secteur bi lim euh, li mu fi fekkoon ba pare nga bàyyi ay lu ñuy wax ay clando en ligne ñëw indi ay application digg dugg secteur transport di def du transport irrégulier nguur gi toog di leen seetaan comme ça ñuy jaxe ñu jaxe secteur transport loolu mënatuñ ko nangu gis nañ tamit phénomène u jakarta yi mhm. te phénomène u jakarta yi dafa am ay loi ak ay règlement yoo xam ne fii moo leen tënk nga xam ne si région yi jox nañ leen foofu autorisation ñu mën fa def du transport public mais fii au niveau du capital dafa am euh, loi ak ay règlement yoo xam ne moo leen tënk ba nga xam ne wañu ñu fi def transport public clando yi tamit ñu ngi si biir dëkk yi partout foo tourné léegi ay clando ngay gis Mm-hmm. ñoo xam ni amul benn sécurité ci du ay professionnel amuñu licence amuñu assurance bu leen permettre ñu couvrir clients yi ñuy yëpp mm-hmm. loolu nag tey lañu taxawoon tey ni nañ ko dénoncer d'assemblée responsable yi nga xam ne ñoom biir nekk ci biir regroupement taxe urbaine yëpp euh, tenir cette conférence de presse pour wax opinion internationale ak internationale que ni euh, transport bi nekk Sénégal fii mi ngi dund ay jafe-jafe yu tar yéen daal dañuy gis Malick Diop bëggatoo leen gis cak-cak yi moto taxi yi euh, ñoom yangoog ñoom seen c'est ça le problème te da ngeen di liggéey ñoom ñuy liggéey tamit voilà waaw xam nga ñun dañuy Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ay frères lañu ay sénégalais lañ comme ñun am nañu sañ-sañu liggéey fii si réew mi mais réew it du doxee noonu du ko mu neex rek nga ñëw secteur bu la neex tey tey Malick Diop mënta xëy taxaw ni moom journaliste la daal di këru ko bi def ay actes yi nga xam ne journaliste moo ko war a def tey Malick Diop mënta xëy suba daal ni moom médecin la ubbi cabinet am daal di day faj secteur a réew dañ koy ay loi ak ay règlement moo ko organisé ku nekk dafa am pàcc bu ñu la jox nga war di ko doxal ñun la tënk la nag si ay loi ni la boo ko bëggee def fii ngay jaar ak fii ak fii pour mën a doxal lii secteur du transport nag dafa toll foo xam ne dañ ko mbaay yàlla dafa mel ni amul kilifa waaw fi ñu toll nii waxuma càq-càq mu tey mais li gën a garaaw mooy phénomène bi gën a mooy clando en ligne yooyu hmm, yi su mel ni ñoom yooyu ma wax. lu si mel ni ay Yango euh, Yassir X ak Kaay Dem nga xam ne tey lu mu néew néew identifié nañ plus de sept cent véhicules particuliers yoo xam ni ñu ngi si biir plateforme yooyu di def du transport irrégulier loolu lañ mënatul a nangu boolekaak cak cak moto yi nga xam ni ñu ngi fees dell Ndakaaru yi ñi daan nekk ci région yëpp daw lañ ñëw Ndakaaru te insécurité totale la fi indi ay agression ay accident yoo xam ne kenn mënu ko lim te parce que amuñu benn assurance dara lu leen couvrir. Hmm. mais ñoom lan lañ leen yàqal seen liggéey yow tamit Malick. waaw xam nga yàq bi yàq bi mooy. transport. Hmm. kenn ku nekk dafa am pàccam. waaw tey bu fekkoon tey moto yi dañ ñëw daal dañuy def livraison ñun amuñu si benn problème. bu fekkoon tam dañuy bëgg a def transport public wut ay kayit ba nga xam ne tey bu ñu la yàqalee dara ngeen a woo cons huissier leen constat bu ngeen demee seen assurance fay def transport loolu itam bañuñu ko ñun dañu bëgg ñu teg lépp ñu réorganiser secteur bi kenn ku nekk ñu xamal la fa nga fa nga commencé ak fa nga war a parce que réew mënoo ko bàyyi noonu fu neex waay jaar ñuy def du transport irrégulier tey clients yi nga xam ne ñu ngi jël euh, clando en ligne yooyu est-ce que ñoom xam nañ ni tey bu ñu si demee amee accident assurance bi du leen couvrir parce que assurance bi ñu yor assurance particulière lu assurance transport public amuñu licence tey ñun nag loolu la ñuy jooytu parce que ñun suñu jafee jafe dëgg-dëgg. Mhm. dafa mel ni amuñu ay autorité dafa mhm. mel ni gouvernement Sénégal le ministre du transport existé wul dafa mel ni directeur des transports existé wul. dafa mel ni CETUD existé wul te CETUD mooy le conseil exécutif des transports urbains durables tey lépp luy transport urbain tey bu si gisee loo xam ne dafay te bokk si war naa jël ay matuwaayam. Euh, def nañu mars la euh, 14 mars dernier fii si place de ko directeur des transports delaluñu ñu expliquer ko problème bi génneel ko ay preuve formelle wane ne ko ñii ñi ngi def du transport irrégulièrement mais lim ñu xamal mooy man de yëguma woon ne ñii dañuy def transport irrégulièrement di dugal ay particuliers seen kii yëguma ko. Mhm. alors que ñu ngi gis ay affiche ñu koy taf ci kii di publicité ay publicité rajo ak télé di yónni ay agence sur le terrain di enrôler ay particuliers di jéem a ay nit pour dugal leen seen plateforme loolu nga ne yow ko daje nañ ak hmm. Cheikh Omar Aw mooy le directeur des études. études waxtaan ak moom xamal ko ni ko est-ce que yëg na lii xew mais amul benn matuwaay bu mu si mos a bu fekkee ne dañu amul capacité pour gérer li leen dénk nañu bàyyi jox ñeneen ñi mën a doxal ñu doxal. Hmm. wax dëgg yàlla mais secteur transport daal taximaan yi fi ñu toll sonn nañ fa sonn yam te incha allahu rabbi combat bi ñu tàmbali dañ koy continuer. moo waral. Mhm. ajjuma bii di ñëw. waaw bii ñëw incha allah dañu fas yéene def benn sitting. dem foofu sitit nekk mooy le conseil exécutif des transports urbains dem toog foofu topp toogaanu ñaxtu wane ni moom ñoom nañuy doxalee lañ leen dénk doxul nañ ko war a doxalee. Mhm. kon daal yéen waaw allez-y demal Malick waaw. waaw si loolu nag directeur de transports moom dañ koo jéggi léegi parce que dafa mel ni ñun Sénégal amatul directeur de transports terrestres. parce que nit koo xam ne yow lu mel noonu day xew sa biir dëkk depuis le 19 décembre ba fii ñu toog amul benn matuwaay wala benn mise en demeure boo mën a envoyé ñooñu nga xam ne ñoo ko def illégalement te ñuy ay service di ay ay multinationales ngeen xam leen te mu leen envoyé benn mise en ñu jox leen ay explication claire lan moo war tax ñu euh, di intervenir secteur du transport te amuñu ci droit wax dëgg yàlla kooku bu ne moom mën na doxal secteur du transport day nax nit ñi. Euh, ñu ngi woo le président de la république di woo premier ministre di woo le ministre Mansour Faye mu ngi suñu ministre di tetal tey dañu war a jël matuwaay yi si war pour réorganiser secteur transport public fii si Sénégal. vraiment ñu ngi dund ay kon da nga bëgg a wax daal yéen seen seen liggéey bi amatul xaalis amatul koppar mënatoo leen verser normal ndax clando cag-cag yi taxi clando yeeg cag-cag yi. loolu ngeen bëgg a wax maanaam business bi doxatul waaw. doxatul gis nga fi ñu toll jafe-jafe yi taximan yi dund ñu ne tey taximaan bi tey bu bëggee assurer versement bi nga xam ne moom la ko transporteur bi teg. Mhm. bëgg a jënd carburant bëgg def entretien véhicule ak tali yu bon yii da ngay gis taximaan bu daw ba ngoon du am sax dépense bu mu yóbbu këram. loolu nag te ñun ñooy ay professionnel tànn métier transport mu nekk suñu profession. Mhm. ñu am un permis de euh, transport am livret de conduite di dagg assurance bu seer di fay ay droits de stationnement. ah loolu yëpp ñu boole ko ba pare bu ñuy xëy suba ba ngoon jot di gis ñoo xam ne ñun la ñu waroon a def tey ñu ngi ñëw di ko def irrégulièrement ñëpp togg seetaan mel ni dara xewul ñoom ñu am le kilo di envoyé ay agents sur le terrain di def ay publicité dans les rajo et télé même yenn certaines euh, kii wu gouvernement bi leen jàppale si wàllu boobu mhm. loolu dañu gis ni mooy loolu mooy rey taxi yi rek mhm. taximaan yi tamit ak ger bi si tali bi a takku der yi problème bi réglé na wala ba léegi mi ngi fi non problème ba léegi mi ngi fi mais xëy na am na ak tan léegi ndax euh, jafe-jafe yooyu ñun yàgg nañ ko réclame parce que loo xam ne mën nañ ko def pour xeex corruption bi nga xam ne moo nekk si kaw tali bi mhm. mooy amende forfaitaire yi kenn ku nekk infraction boo def boo demee buntu commissariat si bureau contravention war nañ fa affiché nga xam ne bu leen indee attestation di nga xam yow la ngay fay nga xam laata ngay dugg di nga xam ne telle infraction boo ko defee boo demee lii ngay fay loolu dina bokk si li wàllu corruption si kaw tali bi. Mhm. mais loolu gis nañ si tuuti amélioration ndax ñu ne dañuy dem di seeti seen kilifa lu si mel ni directeur sécurité publique ak ñu mel noonu waxtaan ak ñoom vraiment si diggante takk der yi ak euh, ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw tali ñun les mais gis nañ ci vraiment ak tan gis nañu amélioration bu baax a baax a baax. tane na léegi ñu wax ci renouvellement wu euh, parc automobile bi lan nga ñu ci mën a wax yéen taximan yi. waaw renouvellement parc auto bi. xam na mhm. état bi bi mu initié nouvelle transport de masse yi. Mhm. loo xam ne da ko diggee woon ak waa banque mondiale. tey dafa waxoon ni buy def transport de masse da koy acco day accompagner secteur bi euh, acteurs yi nga xam ne ñoom la fekkoon ci transport public muy indi benn programme de renouvellement parc de deux mille taxis loolu digg la bu mu defoon mais boobu ba léegi dara taxawu si ba ñu tàmbalee ba léegi BRT léegi mu sotti TER sotti na bay dem yoonam ah mais BRT ngi léegi mu sotti bu ñëwee dina am impact bu rëy bu mu def si transport public bi bu fekkee nag ñun jumtuwaay yi ñuy liggéey méngootul ak jamono vraiment loolu jafe-jafe la lay indi parce que ñun tam duñu dinañ duñu mën joxe qualité service bi nga xam ne moom la ñu war a joxe. Mhm. moo tax ñuy demander ministre du transport li nga xam ni moom la ñu moom la gouvernement du Sénégal liggéey woon ak banque mondiale bi muy taxawal lu mel ni DER ak TRT pour accompagner acteurs yi sur le renouvellement du parc dañoo bëgg loolu mu taxaw si nu mu gën a gaawee parce que jot na. Mhm. wax dëgg yàlla jafe-jafe la boo xam ni tey ñun ñu nekk si terrain bi yëpp loolu la ñuy jooy parce que bëgg nañ ñu ñuy yóbbu usagers yi am une qualité de service boo xam ni vraiment bu méngoog jamono am oto bu baax bu set. bu am clim nga xam ni confort ba sa war client bi na ko fa fekk ba nga xam ne du ko jaral sax muy dem di seeti beneen mode de transport boo xam ne mi ngi fiy di exploité illégalement. Mhm. beneen laaj tamit euh, Malick Diop ñu gis ni souvent euh, yéen taximaani askan wi mere nañ leen usagers yi clients yi parce que dañu gis ni euh, su nawet bi ñëwee prix wu taxi fii ci Ndakaaru jéggi na dayo prix yu doy waar ngeen di laaj ak tamit période u fête comme tabaski korité màggal da leen di arrêté course biir Ndakaaru ngeen koy laaj ay cinq mille ak dix mille francs loolu tamit lu ngeen si mën a wax waaw dëgg la loolu ay jafe-jafe la yoo xam ni mi ngi si biir transport mais mën naa ne sax ñëpp mais am na ñenn ñoo xam ne tey lu mel ni bu dee taw wala mu am événement bu jub si nga xam ne chaque fois demande bi day ëpp offre bi dina am certaine te du ñëpp dina am ñenn ñoo xam ne dañuy xaw a yéegal prix bi mais léeg-léeg euh, li koy indi mooy jafe-jafe bi nga xam ne mooy accessibilité fa nga jëm nit ki dina la wax zone xam ne nga xalaat ne boo demee foofu accès bi du moo tax léeg-léeg ngay xaw a yéegal tarif bi tuuti pour yow it euh, temps ba fa nar a perte ak accès ci accès ba nga fa xam ne des fois nga dugg fa sax paan fa. Mhm. am fay jafe-jafe. léegi yooyu yëpp boo koy calculé dans sa tête naan naa yéegal parce que vraiment bu ma fa amee jafe-jafe it dafay jéggi dayoo de Malick. waaw day faral di am. <laughs> mais tout temps ñu mel ni événement tam. Mhm. loolu dina faral di am événement du jub nga gis ki fu daan dem. Mhm. di ko def euh, dix minutes wala vingt minutes tey mu fay dem bëgg fa kooku tam jafe-jafe lay doon parce que oto bi carburant lay lakk te li muy taxaw si day lakk carburant. Mhm. Euh, mhm. loolu yëpp ñun ñu ngi siy def liggéey bu am solo ñu ngi organiser ay séminaire ñu ngi def ay ay ay waxtaan si plateforme euh, numérique yi di sensibiliser chauffeur yi pour ñu am comportement boo xam ne moo gën a rafet di waxtaan ak clients yi. pour te mën a euh, ñu liggéey bi mën a yomb ñu ñun ak ñoom. voilà Malick Diop maa ngi lay jaajëfal. peut-être am na appel boo bëgg a lancer bala ñuy tàggatoo. waaw appel bi ma bëgg a daal ma dam bi passé damay jéggi le ministre du transport. Mhm. dama bëgg le président de la république monsieur Macky Sall ak son premier ministre ak vraiment ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi yëpp ñu ñëw di ko wax ni ko taximaan yi sonn nañu fa sonn yem bëgg nañ wax dëgg yàlla ñu jàppale ñu ba secteur bi ñu tegaat ko si yoon li nga xam ne bokk ci ku si bëgg dugg nga ñëw jaar fi nga xam ne fa nga war a jaar fi la yoon sant nga jaar nga jaar nga ñëw ñun loolu amuñu ci problème mais ñi ngi interpellé le président de la république mu wax ses euh, ses ses ministre de l'intérieur le ministre de, de, des forces armées mmh. ministre des transports mhm. pour ñu activer seen service pour matuwaay képp koo xam ne yaa ngi def loo xam ne danga dugg secteur bi def loo xam ne waroo ko def ñoom ñu jël matuwaay yéen war a jël pour loolu tam mën a dàkk sinon ñun dañuy passer à la vitesse supérieure ni ma la ko waxee mooy incha allahu rabbi sitting la ñuy def semaine ba sa prochaine dinañ organiser une boo xam ne fii lañ koy defee fii si Ndakaaru mhm. bi leen ñu sa topp nag ñu ngi waxtaan ak yeneen acteurs yëpp cadre unitaire des syndicats ak ñëpp pour ñu déclencher une grève nationale parce que lii ñu bàyyi muy wéy loolu daal ñu ngi koy lancé appel boobu ak président national pour aussi tamit mu dimbali ñu si renouvellement des parcs parce que jot na sëkk. voilà Malick Diop ma koy remercier bu baax a baax mu nekk euh, secrétaire général chargé de communication bu regroupement des taxis urbains du Sénégal. jërëjëf Ndeye Comba maa ngi leen bu baax.